allahu akbar kabiru loolu leer na set na ndeysaan li ci na kooku mooy Aliou Mbaye ndeysaan ba jógee ba komba not komba not one point komba seen ndeysaan ñooñu ñooy fausse combat bi ndeysaan kooku mooy lenke lenke mu jógee komba central mu ngi noonu gayan si xufur yaa ngi waxtaan ku nekk ñu seet la na mooy sa Moustapha Sarr ngi noonu ndeysaan mbokk yi lekkee mu ngi noonu mu jógee Kombo Central ak Foñi Kansala Foñi Kansala ku fa jógee muy Seydou Manka Seydou Manka ndeysaan jox ñu gannaaw lekkee ndeysaan jox ñu kanam lamb jaa ngi noonu compétition baa ngi noonu boo mooy ñetteelit combat bi si poales kon léegi tey mu leer lekkey ak Seydou Manka lekkey jógee Kombo Central Seydou Manka ndeysaan jógee Foñi Kantala ndeysaan lambu jaa ngi nun am na solo amul weerante fan la moo xewee si kanelaay si bayal bu mag bii nga xam na ndeysaan lépp luy lamb daf fi xew Moustapha Sarr Foñu Central ndeysaan Adama Diadio Komba South Adama Diadio moo ñu jox gannaaw jógee Komba South ndeysaan Moustapha Sarr jógee Foñu Bintang moo ñu jox kanam ndeysaan loolu dafa mel ni léeg mu jaax diggéen fee lekke ak Seydou Manka ndeysaan lekkey lekkey jege Komba South lekkey jege Komba Central daanee na kooku nga xam ne mooy Seydou Manka jógee Foñi Kansala ndeysaan waaye dafa mel ni ndeysaan ba léegi la làmb yi jeexut desan Moustapha Sarr nga xam ne ndeysaan mu ngi jógee Foñi Bintang moo ñu jox gannaaw Adama Jaaju jógee ndeysaan Komba Saot jox ñu kanam lambu jaa ngi noonu amul wérante Komba Saot foo ñu bantang Moustapha Sarr Adama Jaaju ndeysaan lambu jaa ngi noonu fan Kanilaay ñana ko organise West Coast Region ndeysaan nga xam ne nine district ñoo fi tase war a jongante jongante bu rëy boobu ñu war jël fukki mbër tey présental ko mu nekk ndeysaan ñu nga xam ne ñooy représental comme West Coast Region ndeysaan Moustapha Sarr Adama Jaaju jógee Komba South Moustapha Sarr foo ñu bintang Moustapha Sarr jox ñu gannaaw Adama Jaaju jox ñu kanam léegi mu leer Komba Sarr la ak foo ñu bintang combat bu am solo ngi noonu muy ñeenteeli combat si poids les ndeysaan dafa mel ni ñu war a dem léegi tey ñu xàmmee leen lu war a xew léegi mu xew ñëpp a ngi tey ku nekk xam na sa façon ngi morom sëriñ yi di liggéey kufur xabar yi dem nañ ku nekk nga jonkan toog si nen ndeysaan diggante ak Adama Jaaju Komba Sarr Moustapha Sarr Foñu Bintang Adama Jaaju Komba Sarr ref li bu nga xam ne ndeysaan fédération bi ñoo ko yónni nga xam ne lépp luy làmb ñu ngi fa lépp luy xew fu mu nekk si Gambie ñu génnal leen ko làmb yaa ngi noonu baa ngi noonu mu jógee si region West Coast West Coast moom tey lii muy andi 28 april GRTS di leen ko indil nekkal leen fii di Matar Seen di leen waxal lu xew si làmb ji di nuyu ndeysaan ñëpp seetaankat yi làmb yi promoteurs yi saan ñu nga xam ne ñu ngay yëngu si làmb yëpp ñu ngi leen di nuyu daal di aw ko soobee ñaar Omar Sané